Sénégal jaar naa leen màggal leen di jox seen wàccuwaay mën nañu ñaan nag ngeen partager vidéo bi le maximum ndax vidéo tay bi dafay nekk vidéo bu spécial dañu bëgg ngir africain yi yeew xam tamit ne bis bu peuple africain bi jugul jël seen destin en main danañ yàgg lool ci nooteel tey ay baadoolo yu mel na Macky Sall danañ continuer di wër di jiite suñu réew yi ba ilaa yawmi diini abadan waaye balaa ñu tàbb ci vidéo bi dañuy dem ñu interroger toute histoire États-Unis première puissance mondiale seen budget de défense mu ngi toll ci sept cent soixante dix milliards de dollars am nañu doole de waaye seen premier président de la république George Washington ci jamonoy dix sept cent quatre vingt neuf jàpp tey mu ngi ci 46 présidents de la république ki ci mujj tey mooy Joe Biden waaye ku xam Amérique xam ne jiite nañ ñu ne ci àdduna bi waaye ba suñu jonni yàllay tey ji mosu leen faa dégg ministre bu fa détourné ay milliards ba suñu jamonoy tey ji nii mosu leen a dégg doomu ministre wala doomu président bu fa détourné ay milliards waaye tamit mosu leen faa dégg jabaru président wala bu jëwinu président bu détourné ay milliards bu mu foofu mu tàbb ci réewum France France gi nga xam ne mooy dooleel dictateur yi nekk Afrique rawatina biir Sénégal France su ngeen bàyyee xel seen premier président de la République mu tuddoon Louis Napoléon Bonaparte moom nañu bàyyi xel que ne maanaam mu ngi toogoon ci réew moomu depuis 1848 boo ko toppee ba suñu yàllay tey jii nii 2023 ci jamonoy Emmanuel Macron am nañ ci lu toll ci vingt cinq président de la république waaye réewu France moom nga xam ne mooy dooleel dictateurs yi fële ci Afrique rawatina Sénégal mosu leen faa dégg problème mu mandat mosu leen faa dégg ministre bu détourné ay milliards mosu leen faa dégg jabaru président wala géwélu président bu na ay milliards waaye tamit mosu leen faa dégg ñu rey fa lu toll ci quatorze personnes te amul benn enquête bu ñu fa ubbi lan moo tax nag ma ñëw di leen indil histoire ñun africains yi lan mooy suñu problème wala boog dañoo ñëw ci àdduna bi pour seetaan ba ay baadoo la war a toog ci suñu réew yi di ñu jiite ci ay at yu yàgg ma jox leen benn exemple danaa leen limal ci lu toll ci ñetti réew ya nga xam ne président ya fa nekk yaakaar naa ne nekkatuñu sax ay président waaye ay buur lañ bu ngeen demee tey fu mel ni Guinée équatoriale ku ñuy wax Théodore Obiang moom mu ngi toog ci nguur googu noonu dëpp ci lu toll ci 43 ans nga dem fële ci réewum Cameroun Paul Biya mu ngi fa toog depuis 40 ans waaye nga dem ci réewum Congo Denis Sassou Nguesso mu fa toog depuis 38 ans waa sa waay ñii est ay président lañ wala ay buur lañ Macky nag ci ñooñu lay inspiré wu tey ba tax mu yaakaar ni réew mii di réewum Sénégal mën na koo def moomeelu baayam ba toog fi ay at yu te kenn du wax Sénégal wër leen àdduna ba àdduna daj réew yi nga xam ne ñu ëpp doole ci àdduna bi mënuñu faa rey benn nit te du am enquête wër leen àdduna ba àdduna daj réew yi ëpp doole ci àdduna bi du ngeen fa gis mukk ministre wala doomu président bu fa na ay milliards te jàpp ñu la tëj ci kaso bi waaye suñu réew yi nga xam ne créé wuñu dara loolu xëy suba ba ngoon jot di def la promotion de la médiocrité ay ministre ay géwél ay fecckat ak tëggkat ñu toog ci ay plateau télévision di xëy di fen suba ba ngoon jot di wax lu leen neex te dara bu ci mujj am ay magistrat ay généraux ya nga xam ne dañoo ñàkk jom yaakaar na ñoom seen nguur gi dafa war a ànd ak Macky sàll ba faw Sénégal dafa des nag ci ñun africains yi wala boog dafa des ci ñun sénégalais yi ñu xam ne am réew day doon am réew am justice ñëpp bokk ci kanamu yoon wala boog dootul doon am réew ñu bàyyi ko mu doon royaume buur ba fa nekk di dogal lu ko neex te kenn du ci mën dara réew mi di réewum senegal la ma leen waxoon laa leen di waxaat Macky Sall donnuwu ko ci ndey donnuwu ko ci baay réew mi di réewum Sénégal démocratie moo tax Macky Sall nekk fi président waaye buñ ko toppoon ci liggéeyi maamam rek du fi am brique parce que maamam wala ndayam ak baayam teguñu ci réew mi brique ba senegal toll fii li mu bëgg a waxaat nag mooy ay baadoola faw fu ñu jiitee nguur rek faw gor yi sonn ndax gor yi la ñuy jàpp di tëj ci kaso bi gor yi la jàpp di exilé waaye gor yi tamit la ñuy jàpp di rey yaakaar na dara mënu leen cee fekk waaye li olof njaay di wax naan waxtu woo demee ba yaakaar na yaa yor doole ji yàlla dina la puus xamal ne moom rek moo yooyor doole Macky Sall jël na Khalifa Sall faagaagal Macky Sall jël na Karim Wade faagaagal waaye yàlla suñu borom ne ko duma la bàyyee noonu mukk andil ko Ousmane Sonko tegal ko waaye ay magistrat yu ñàkk jom nekk ci réew mi di gis ñuy rey doomu Sénégal yi waxuñu dara as doomu tubaab su ndaw dëkk fële ci France ñu koy Juan Branco ñëw taxaw tey pour defal justice réew mi di Sénégal dafa ruslu sax ci réew mu mel ne Sénégal dafa ruslu sax ci réew ma nga xam ne yaakaaroon nañ que ni ki juddu après les indépendances moo waroon ñëw tey pour teg réew mi ci kanam waaye dommage réew mi di Sénégal askanu senegal ñoo koy soppi wala ila yow mi diini ci ak njaam la ñuy dee sur ce ngeen partagé ma vidéo bi le maximum ndax jaam yu mel ne Macky Sall waratuñoo toog ci réew mi di ko jiite xeex rek ngir Sénégal am liberté ñu yendoog jàmm